identifier di ko assumer. ok euh, d'accord ci leneen lu ma bëgg ñu taxaw ci dafa am benn benn déclaration bu benn membre PASTEF def ci projet PASTEF mu tuddee ko daxwaa wax projet bi tax li tax a jóg euh, PASTEF bokk na ci jële fi jaamu nit indi fi jaamu yàlla euh, maître dem ba Touré moom moo ko wax. je pense dégg nga propos yooyu parce que ñu bari ñu ngi koy dégg nga ko je pense. propos ah non ah d' accord donc cette branche ngeen Demba Touré ku xel mu sell la am. ko dégg souvent. alors jàmbaar la ci li muy def. d' accord waaye loolu mu wax dégguma ko. alors léegi li mu wax mooy ci projet bi ci préambule bi wax nañu ci lu leer que ni projet PASTEF bokk na ci jëlee fi jaamu nit indi fi jaamu yàlla. te xam nga ni bu ñu waxee jaamu nit fii gisuñu fi kuy jaamu nit. c'est-à-dire ki ku traduire mën nga trahir mais li nga xam ne moom lañ fi gis mooy ay nit yu am seen ngëm-ngëm am ku ñu gëm am ku ñu sopp am ku ñu bëgg c'est-à-dire yu mel noonu nan nga ko déggee ak ban xalaat nga ci am. waaw man day Pape nag moom yaa ngi may bëgg dugal ci loo xamante ne nii dégguma fu mu ko waxee bokkuma Pastef liiruma projet Pastef xamuma nu mu tënkoo. nga bëgg ma addu ci. d' accord alors bokkuloo Pastef mais bokk nga ak Pastef coalition ñu koy wax Yewwi Askan Wi allié bu sûr Pastef. alors donc jeex na allié bu sûr kay ba ni nga ko waxee préciser ko mais loolu war na tax ñu laaj la nga commentaire peut-être propos yooyu ñu mën ci am. luñ ci ci wax moom bi mu koy wax. tëddul ba nelaw yeewu rek wax loolu wax ba ci sama ci li ma jàpp am na fu mu commencé am na fu mu mujj man dégluwuma la mu wax ca commencement ba. dégluwuma fa mu mujjee nga bëgg ma def ci commentaire c'est trop léger je ne me permettrai pas de faire ça nit ki su demee bay addu ci dara dafay maîtriser les tenants et les aboutissants wax na jàpp naa ne xëy na ba mu koy wax comme ni ma waxee sànq yeewul rek wax ko. d'accord ci wax bu ci ci ci xëy na xaw ma fu mu ko waxee. waaye en tant que membre membre directoire wu parti pur yore stratégie. yore vue euh, politique tey bu la Serigne Moustapha laajoon ci propos yooyu danga koy wax ni ko dégguloo ko mais moom laa la wax cest à loolu da nga xam ni par exemple pendant une semaine moo viral mais mën na viral mais li ma la bëgg wax mooy man yaa ma ko wax fii beneen bi mooy nee naa la sànq maître Touré yeewuñ ko rek mu jóg wax ko wax ni nga ko waxee wax bi xëy na am na fu mu commencé am na fu mu mujj xaw ma discours la xaw ma ci waxtaan la xaw ma ci débat la xaw ma ci lan la balaa may apprécier li mu wax gis nga su fekkee ne nit dafa wax nga seppi ci dara nga ne ma wax ci sa xalaat mais ce sera un avis biaisé. mais mais mais mais Cheikh Tidiane loolu dama la koy nangu la ah. loolu moom comme dégguloo kàddu yi li nga wax ànd ak yow amul benn commentaire boo ciy def loolu je suis mais li ma jaaxal rek mooy cest à nga nekk ci ci ci vie euh, publique bi vie politique bi loolu échappé la loolu mën naa la ko nangul aussi y a pas de souci parce que du lépp ngay mën a comprendre d'accord y a pas de souci loolu amul amul problème léegi ñu dem ci leneen ah leneen li ma bëgg ñu dem ci mooy ëllëg fukki fan ak juróom benn ci weeru février mm-hmm. Ousmane Sonko dafa war a dem wuy ji ci kalaame bu ko Mame Mbaye Niang kalaame ci mm-hmm. wàllu diffamation mm-hmm. euh, dégg naa ko tout à l'heure moom euh, Ousmane Sonko ci déclaration bu mu def. Mhm. mu wax ni dina dem wuy ji. Mhm. te mi ngi demandé ñëpp aussi ñu ñëw seetaan si. Mhm. mu ne bu kenn di xeer bu kenn xeex bu kenn def dara. am ngeen droit ñëw seetaan si na ku nekk ñëw seetaan si. loolu wax na ko. alors mu nekk loo xam ni euh, mën na lu lu ñu mën a apprécier la. parce que xëy na mënoon na wax leneen wala nangam. ban xalaat nga am ci loolu nga xam ni tam wax na ko wala loolu danga may wax dégguloo ko aussi. kaddu ah, Ousmane Sonko bi kay ñëpp xam nañ ne suba la. waaw ah, d'accord mais li mu wax aussi. li mu wax euh, bi ñu toogee ci salle d'attente bi euh, kii ñu suñu responsable de la communication mi ma koy wax. d'accord mais mais xam nga gis nga Ousmane Sonko. Mm-hmm. au-delà de son courage. au-delà de son endurance de sa pugnacité et de son engagement pour le Sénégal ku am chance la. Mm-hmm. mën naa ne ci homme politique yi nekk Sénégal. moo ci ëpp chance. nga nekk ci opposition. te président de la République def leen ko seen candidat rek. mais ma ma <laughs> moo ci ëpp chance kay yéen di nga <laughs> comprendre non boo ma bàyyiwul fu may fu ma bu ma yi fi nekk ëpp chance. <laughs> moo ci ëpp chance loolu la yàlla dogal. nga am leader. chance boobu nga am leader politique yow. chance nga jël ko teg fële nga Ousmane moo ko ëpp chance. kon tey def leen ko seen candidat ba yoon. chance bi naka nga koy expliquer boo ma dégloo rek di nga comprendre chance bi fan la tegu. ok dafa am chance loolu. parce que président de la république bu demee ba transformé wu nekk sa directeur de communication nekk sa directeur de massification loolu ba opposant boobu lan lay laaj ñun it chance boobu it am nañ ko it. Hmm. parce que Serigne Moustapha amul lu ko Macky Sall tegul ci gannaawam. Ousmane Sonko Macky Sall. est-ce que pur du ngeen jël Sonko ngeen def ko pré euh, seen candidat après mu jeex. wax naa li nga ma wax lu lu ma dégg li ma wax léegi mooy Serigne Moustapha suñu candidat mais li ma la bëgg wax moo di. mais ma waxaat ni ma. Ousmane Sonko moo leen ëpp chance. moo tax ma ni kon ki ëpp chance kay. pour gagner chance. ki ëpp chance kay. ko seen candidat ñu gagner ngeen gagner après ñu avancer. déet li ma la wax lu leer la. acca dama ne la. Uh-huh. xam nga yow fi nga teg chance bi ak man fi ma ko teg du benn Ah, et Dante am na chance pour gagner aussi hein ça ça, ça je le dis aussi. Mm-hmm. am na chance pour gagner. comme ni Serigne Moustapha amee chance pour gagner comme ni Khalifa Sall amee chance pour gagner comme ni Déthié Fall amee chance pour gagner comme it ni Soxna Aïda Mbodj amee chance pour gagner comme ni leader yi nekk ci coalition yi askan wi yëpp am chance pour gagner mais chance bi mooy wax moo di yow opposant nga président de la république transformé wu directeur de commune sa directeur de communication di la liggéeyal lépp lu mu def suba ba ngoon. ci sa dafay def sa promotion loolu koy opposition mënul rêver opposant mënul rêver lu lu toll noonu chance foofu la chance bi foofu la côté. Mm-hmm. d'accord Macky euh, lépp lu muy def bu yeewoo suba ba ngoon nu muy nu muy nu muy nu muy lu muy liggéey la Serigne euh, euh, Ousmane Sonko ci loolu lay def te it loolu lay def it ci Serigne Moustapha Macky Sall depuis mu ñëw ci nguur gi depuis 2012 amul lu mu deful Serigne Moustapha. en termes de provocation Serigne Moustapha wax na ko ci mawlid bi passé dem na fi Maroc mhm. ñu bloqué passeport am ci passeport boo xam ne nii état bi moo ko ko jox téye ko fa loolu jàddu na ci kilifa mhm. waa Maroc ci seen bopp mili euh, police Maroc ci seen bopp wax ne instruction bi jógewul ci ñoom ci Sénégal la jóge loolu rafet na mhm. moom loolu la nekk ci nguur gi Macky Sall waaye loolu duñu ñu bett xam nga lu tax ma ne du ñu bett Macky Sall ba mu yegsee 2012 dafa posé ñetti acte yoo xamante ne nii fi ñu toll nii mënul nekk leneen lu dul fi ñu toll dañuy wax ne mënuloo teg sombi yàq ceebu jën mënul nekk boo tegee sombi sombi rek nga yàq ceebu jën nag boo ko tegee ceebu jën nga yàq Macky Sall bi mu yegsee lan la jëkk def dafa ñëw ne danaa réduire l'opposition à sa plus simple expression mm-hmm. est-ce que nit ñi xam nañu lool lan lay firi lan lay signifier mm-hmm. danaa leen supprimer totalement ou bien me réduire leen à leur extrême mm-hmm. jóge ci loolu kilifa diine yi nga xam ne ni ñoom ñoo téye askan wi ñooy régulateuru askan wi mu ne kilifa diine yooyu ay sénégalais simple lañu cër bi nga xam ne ni am nañ ko mu nangu ko ci ñoom rax ci dolli jël ay kilifa diine yoo xam ne nii dañ leen a joxoon ay passeport diplomatique jël ay kilifa diine yoo xam ne nii dañ leen a joxoon ay oto mu nanguwaat ko ñetteel bi mooy lan mu dem campagne 2012 jaay sénégalais yépp yoonu yokkute. Mm-hmm. ñu teg ci quelques weer quelques mois mu indi Sénégal émergent. d'accord li muy firndeel mooy nit la koo xamante ne mm-hmm. nii. d'accord li muy wax tey. ak li muy wax suba du benn. d'accord ay waxam. ok ci kenn door xale. d'accord alors Cheikh Tidiane euh, le 16 février aussi muy suba date la bu ñuy fàttali lu doy waar ci 1994 loo xam ni moo fi xewoon. 93 93 plutôt 93 excuse-moi toujours 16 février mu nekk loo xam ne lu tiis la ay policiers ñàkk ci seen bakkan sëñ Moustapha Sy dem ci kaso. coow lu bari amoon ci Ablaye Wade naka noonu souvenir boobu itam lan lañ ci mën a retenir pour yéen. une précision Serigne Moustapha demul kaso ci loolu. Mhm. li yóbbu Serigne Moustapha kaso mooy meeting bi ñu defoon centenaire. ban année la woon loolu. 93. ok mu ci wax crise yi nga xamante ne ni moom la régime Abdou Diouf doon rencontré mooy ñetti crise crise d'autorité de compétence ak de de de de confiance. mais meeting boobu moo indi moo indi. indi ñu yóbbu ko kaso Serigne Moustapha. dem na kaso mais aussi moo indi aussi li xewoon ci policier yi. Serigne Moustapha dem na kaso avant li am ci policier yi di am li am ci policier yi. dégg nañ ci ay témoignages dégg nañ ñuy wax eh, ñu ñu ciy raxas deru moustarchidine wala moustarchidaat yi xam nga dañu nekkoon nguur boo xamante ne nii Serigne Moustapha na ko ñëpp xam Serigne Moustapha nit la ko xamante ne nii. il est toujours du côté des opprimés. Mmh. Il est toujours du côté des faibles. il est toujours du côté du peuple. Mm-hmm. nguur gu fi nekk di def naka su noonu day jàkkaarloo ak yow. loolu la def ak Abdou Diouf. Mm-hmm. moo tax mu dem kaso. Mm-hmm. ni mu jàppale woon Abdoulaye Wade ba fal ko bi Abdoulaye Wade defee loo xam ne nii méngoowul ak li askan bi bëgg dafa wàññeeku jàkkarloo ak moom. c'est un contre-pouvoir Serigne Moustapha Sy ci la daayira bi nga xam ne moom la jiite woon itam amoon problème ba ci lañ ko euh, tasoon ak Djibo Leyti Ka nga xam ne moo nekkoon le ministre de l'intérieur autant waaw xam nga it souvenir yooyu rek ci 16 février bi moo tax may wax aussi ah, pour nga xalaat ni li amoon day am no non non pas du tout damay non xam nga aussi bu ñu demee ci souvenir pour souvenir rek moo tax ma abordé ko. souvenir yooyu li ma li ma ci li ma la li ma la ci mën a wax bari na. Mm-hmm. loolu bi mu amee nekk na loo xamante ne nii régime Abdou Diouf ci boppam mënuñ la indil preuve ne Moustarchidine wala Moustarchidaty ñoom ñoo def loolu amul benn preuve bu ko andi amul benn preuve du vidéo du dara lu ko andi et au contraire li ñu def mooy jël ay njaboot jël ay borom kër jël ay jigéen parce que seen seen seen leur seule faute c'est d'avoir été membre de la daïra mustarchidina wal mustarchidaati di leen torturer tëj leen ci tëj boo xam ne nii jaaduwul fenn donc loolu man jàngat boobu laa ci am mooy maanaam 16 février nekk na loo xam ne ni toor la bu ñu teg mustarchidin yi mhm. parce que ba fii ñuy wax amul kenn ku mën a génn preuve la amoon yi ñoo ko def mhm. amul et au en, en dehors de ça ñu jël ay mustarchid tëj leen privé leen seeni famille di leen torturer am na il y a pas longtemps on a sorti les archives yenn ci archives yooyu ñi ñu jàppoon di leen torturer ñu di wax naka lañ leen doon torturer naka lañ leen doon électrocuter naka lañ leen doon dóoree naka lañ leen doon étouffer dans un pays de droit donc 16 février dafa nekk loo xamante ni. Mhm. dañu ci tooñ daayira Moustarchidina wal Moustarchidaty mhm. tooñ ci Serigne Moustapha. Mhm. tooñ ci Maam Cheikh Al Maktoum tooñ ci sénégalais yëpp. tout Sénégalais imbu de justice tooñ nañ la ci 16 février. Mhm. d'accord euh, donc souvenir u naqar ngeen ci am quand même. évidemment mm-hmm. évidemment mm-hmm. évidemment. d'accord parce que lu toll noonu ñu teg la ko ki la ko teg mënul génne preuve ne yaa def. mënuñ ci am lu dul souvenir u naqar. d'accord mu coïncider ak suba aussi Sonko coïncidence boobu moom sa. ci benn benn lecture. yaa ma wax léegi ne ma Ousmane Sonko nee na ñëpp